une mention particulière à un homme. Je pense que je n'ai pas besoin de le citer pour le remercier. defal dañ ko ciy ndokkeel ci gis-gisam ci détachement ci désintéressement ci xalam bu ñor ak ci xalaatam yu rafet yoo xam ne moo tax ñu taxaw coalition Diomaye président moo tax projet bi am candidat ba sénégalais yi amoon yéene jëmmal projet boobu ba xool promesse yi ci nekk yaakaar bu ma jur naka lañ ko fas yéene doxale bu nekkoon kenn koo xamante ne rek day wax ne man kese bu dul man bu doon keneen ci gannaaw kon loolu du mën a am waaye yemul ci loolu yemul parce que dafa takk ndigam takk ay dalam sol yéeram yendalul fanaanalul guddeeg bëccëg subaak ngoon soit ñu ànd soit mu jël axe ma jël beneen axe muy battre campagne matin au soir 6 heures du matin ñu koy gis muy baat campagne 2 heures du matin ci bëccëgu ndar kam ci suba teel donc jaar na fu ne def na lu ne te lu ci nit ñi gis rek lu fës nañ xam ne lu ñu gis mu def ko ci lu fësul moo ëpp solo ci lu waral résultat bii tey. kon mënuñu ko bañ a beral loxo te bu ngeen seetloo saa yu may jëf prise de parole. dama koy mujjee pour que nit ñi doon bu ñu dee tàggoo nit ñi nekk lu ñu mujjee retenir parce que bo bëgg naa bu nit ñi retenir dara ko loolu bokk loo xamante ne ci discours bi nu mu gudd gudd wala nu mu gàtt gàtt loolu du bokk ci lu ñu fàtte kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan may ko wér-gu-yaram ba yéene bi nga xamante ne ak ñu ci àndal yépp ci liggéey bi am na ko ci ñu mën ko doxal ci Sénégal mu Sénégal Sénégal bu naataange Sénégal bu may cër bàyyil ko xel gën ko fonk ci àdduna ak euh, ñu teg ko teg ko tamit ci loxo yoo xamante ne ay loxo yu wóor la